ay sama gars yi Facebook bi ah affaire bi YouTube la ah la lay xewee ah sama gars a ah waaw wala boog